assemblée nationale ñoo ñu convoqué en session extraordinaire comme ni ngeen ko xamee euh, mu am yenn ci ay projet de loi yu ñu dugal mais bésu tey bi euh, bés la boo xam ne c'était juste pour ouverture bi donc ñëw nañu rappelé nañu xool nañu si le quorum était atteint effectivement le quorum était atteint donc euh, président jot na déclaré officiellement ouverture session extraordinaire bi gannaaw loolu donc mu lever la séance mais commission les présidents ñoo war a daje waxtaan xool nu ñuy tëralee liggéey bi donc tey bésu tey bi daanaka loolu lañ jot a def. journée bu tey c'était juste pour question de ouverture session bi ñu gis ndaa am nañu quorum bi quorum bi su amee il va ouvrir la session maintenant la conférence des présidents va se réunir pour établir le calendrier. quorum boobu noonu il nous faut il plus 1 ce qui veut dire 83 députés. Mhm. c'est-à-dire la moitié plus 1 donc si on atteint ce quorum on va ouvrir la session. Donc maintenant, nous, on ne sait pas encore parce que la conférence doit décider des lois qui doivent passer ou pas avant que l'on puisse établir le programme. Donc ñun dañuy xaar ñoom lu ñuy décider nañu soog a jël pour ñu xam exactement ce qu'on doit faire mais je reste convaincu que y a des lois dont on ne pas l'intérêt parce que gisuñu président buy génn lan moo tax mu bugg a dissoudre assemblée. moom dafa déclaré nii day dem mhm. gisatuma jëriñ dissoudre l'assemblée s'il dissout l'assemblée ce qui veut dire moom mu ngi si calculam mhm. ay calcul yu kenn xamul te loolu moom c'est dangereux par exemple peut-être il va dissoudre l'assemblée et s'il dissout l'assemblée il y aura plus une institution qui pourra lui bloquer quoi que ce soit un et après ils vont essayer de peut-être aller recueillir Ousmane Sonko et tout ce qui va créer comme boucan sera une occasion pour lui de déclarer voilà vu l'instabilité je encore faire deux ans voilà de service le temps de pouvoir réguler tout avant de partir. Donc ce sont des moyens qui son là. Nous, personne ne peut prédire ce qu'ils veulent faire. Parce que Ken Hamoul si l'on l'a basé pour faire ses calcul. Mais nous ni si propose ces lois-là, amna lo xamantene ñoom ñu ngi koy préparer si souf pour mu jalla mu faciliter len parce que quoi qu'on puisse même si ñu ko défé couplage élection qu'est-ce lañu mëna gis donc d'ici ay octobre yooyu ils vont dissoudre l'assemblée parce que am na ay délais yoo xamante ne il faut les respecter 60 à 90 jours soo dissoudre assemblée pour nga mun a programmer ay élections donc suy intervalle loolu octobre la mun a doon ay octobre yooyu ñu dissoudre assemblée mais si l'assemblée est dissoute au mois d'octobre am na problème yu bëri yi xew parce que si c'est dissous ce qui veut dire il y aura pas de réunion au sein de l'assemblée et c'est la période loi euh, loi de finances et Donc si on dissout l'Assemblée à ce moment, ce qui veut dire le président a la même mise totale pour dérouler sur le budget qu'il veut, le budget de 2024. Il n'y aura personne pour contrer ou pour arbitrer ce budget-là. Donc c'est un danger. Bon, moi, je voter contre, mais je ne peux pas parce que yen, ça, ça regroupe plusieurs personnes. Et ne commencez à Chacun est libre d'arbitrer et de voir le danger qui qui nous guette. pour est-ce que mën ngeen contrer yéen euh, yéen ñi nekk ci opposition. y a que Yewwi seulement nous sommes si nous regroupons Yewwi Wallu on fait et pour que cette loi passe faut 99 députés. donc si on suppose que tout le monde est là maintenant en plus des absences ils vont affecter comment un quorum qu'il faut pour que je sais que si les autres coalitions sont contre, la loi ne pourra pas passer parce que ce n'est pas au bénéfice même de ceux de Benno Bokk Yaakaar. gannaaw boo xamee ne benn session moom la parlement bi am muy session ordinaire unique tëj nañ ko ci fin juin waaye charte réew mi dafa may président de la République sañ-sañu su amee lu bees ak loo xam ne nii itteel na njëriñu réew mi mu sakku gannaaw session ordinaire. assemblée nationale pencum ndaw réew mi daje ci session extraordinaire su ca toftale ne dafa bëgg mu nekk liggéey bu jàmp dafay nekk de droit looloo waral ñu woo ñu fii tey bu ñëwee président assemblée day seet ndax li mu député yi teew méngoo na ak li ñuy wax quorum ndax assemblée am na sañ-sañ ak lim bu mat sëkk pour délibérer bi ñu wootee ci téeméer ak juróom fukk juróom benn fukk juróomi député li fi teew téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la kon korom bi am na nañu li tax ñu woo leen ci session extraordinaire bi mooy njiitu réew mi dafa sàkku yónnuñu ñu bataaxal wax bataaxal bi lu ca nekk mu ne kon nag ni ñuy liggéeyee mooy dañuy dakkal suñ jotaayu plénière bi dem def réunion de bureau suñ ca noppi toftal ca réunion conférence de président ba noppi door dem commission kon maa ngi leen di wax ne dakkal nañu réunion bi na ngeen déglu li jógee ko ci conférence de président gannaaw bureau de l'Assemblée diggante bi groupe bu ne dem na daje man groupe bi ma bokk muy groupe benn Bokk Yaakaar daje nañu gannaaw boo xamee ne laata tey ñun toogoon na ñun député Benno yi toogoon nañu ak président Macky Sall muy suñu jiit te moo sooke lii président xamal nañu ne ay la pour méngoo moom ak gis-gisam mooy sukkandiku ci li mu def keroog le juillet fii mu ngi nekk président. dara luy niroog pëccëxoo ak intérêt boobam du tax muy def mbiru njuuj njaaj nee na dégg na waa parlement bi ñu bokk ci famille am ak ñi bokk ci yeneen sensibilité yi parce que réew mi même bu ñu toogul waxtaan ñi ngi dialogue même bu ñuy dialogué par monologue parallèle kii wax fële kale addu fële ñi ngi wax ñi ngi nee na seet na ba seet moom lu jëm ci tas assemblée génne na ko retiré na ko kon li ñu war a waxtaanee danay soppeeku li ñuy waxtaanee léegi mooy li soqee koo ci dialogue national bi def consensus waaye lenn lu niroowut ak consensus du ko duñ ko waxtaanee mu ne moom comme fii ba 2 avril mooy président Sénégal ta nekkul candidat dara luy niroog luñ ko mën a as euh, xasee mbaa yàq deram du ko fi def kon président bay falu ji kenn xamul kan la yàlla rek ko xam kooku bu faloo moom dana toog seet gannaaw bu ñaari atti assemblée yi mate lan lay jëfandikoo ci sañ-sañ ko constitution lii mooy li xew fii li ci man du ma nettali génn géntu kenn ki ma bokkal néeg tëdd ci benn bi sax mënu ma xam géntam waxuma laa ki ma bokkalul parti bokkul maa mu xalaat bokk ma ni muy gisee man socialiste laa te Jaurès doon ne être socialiste c'est être républicain jusqu'au bout moo tax ma wax la ci doxalin ci esprit lan lañ def tey fii assemblée ak lan moo fi génnee fii ak ngoon danañ xam gannaaw bu conférence de président lii waxtaanee pare naka la ñuy liggéeyee ci commission technique ak naka la ñuy dellu ci plénière bi waaye wax lu sotteegut kooku moom dëkkal sa morom ci fenn bi rek te man du ma ko def ndax damay jox sama nit ñi naaw sama morom nawle wax ji daal dama ne lu jëm ci constitution bi moom tegal fële fétti boor fétti na boor salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sama yoon newul ci moom